nga commencé muy neex di commencé muy neex dëmb ci biir mu commencé di metti gars yi commencé laa nànd papis du ma moom papis boo bëgg moom day xaw a metti ci yow balaa nga yegg ci làmb ji da ngay sonn nga dëmb ci biir combat yi commencé difficile moment boobu lan nga wax est-ce xalaatuloo ne mën naa wàññi gàllaaj yi est-ce que xalaatuloo ne est-ce ma ko bàyyi. dem naa ba ñëpp di ma ko wax dem naa ba sama waa dëkk maa ngi gërëm bu baax nag wax dëgg na yàlla samay nit lañu ak ñoo ma bëgg waaye ak ñoo ma xam. dañoo dem ba ni ma naan wàññil gaa laaj yi. na nit ñi ñemeetuñ la est ce que ma def naa trois ans année blanche. Mm-hmm. def naa trois ans année blanche. pourtant yaakaar naa lu bari waa Dodo yàllaa ko dogal damay nangu man damaa yéex a dugg Ndakaaru ma nag àdduna ma solo. naa nangu loolu rek ànd na amul problème. <laughs> nga def trois ans année balance gars yi bañ laa jël. Mhm. bi la gars yi bañ a jël nga def trois ans année balance xalaatoo woon ne boog nga wàññi wala boog moment boobu di décider nga pour wàññi ndax mën a bëri. làmb kenn ko wàññi da nga koy yokku rek boo wàññi du daan la. bi nga defee trois ans année balance bi nga dikkee kan nga am. ba ma dikkee. saaka joor ka njëkkatee teg ci doomu Jalaw. Amath Coinche Coinche daan ma nice. léegi lan moo nga bëgg ñooñu daan leen ba noppi génn def sorti wax ñu tontu bi ñu tontoo yow noo gisee noo gisee ñoom lu ñu waxee. moo la benn affaire ci àdduna mosuma def interview. Mhm. di xool tontu nit ñi. sama bu góor ñoo bokkoon dara bàyyi xam nga lu ma wax keroog dafa ko sa une semaine. Mhm. day xool tontu nit ñi. pour nga xool luñ lay waxal nga xam fooy jaar a foo warul jaar waaye moytul yéene waaye sama mag bu góor moo wax loolu nangu naa ko bu baax a baax waaye mosuma di xool interview mosuma di def interview di xool tontu yi. non tontu ñii commentaire maanaam mbër yi nga xamante ni wax nga ci ñoom muy muy muy ki nga xamante ni muy doomu doomu Jalaaw ak ki nga xamante ni mooy euh, Sakho Dior. bi nga bi Sakho Dior waxuma ci moom. amu ko laa waxal. amu mm-hmm. seen junior ak doomu Jalaaw. waxuma si Saaka Joor. seen junior li nga wax Saaka Joor moo ko métti moo tax moom mu génn tontu la. dafa comprendre luy làmb. àdduna neexul. Mm-hmm. boo nekkee ci gox. boo nekkee ci gox. am fa ay mbër yu bari. amul mbër. foog nga sa saxul rafet tolop. meloon naa noonu de. Saaka Joor. yàlla ko may jàmm ak salaam. waaye xam nga sénégalais benn nopp lay déggee. te am ñaari nopp. yow yow feebar fii am na fee am na ñu yóbbu la hôpital ñu xam ne fii feebar la après ñu bëggoon ne Papis général nangam nangam kooku yàlla dina ko ma jaam ak salaam bu ko yàlla bëggee def yéen yi nag yàlla la pourtant nag yàlla mun na maa njëkk a jël ko moom yàlla mun naa njëkk a jël keneen ko moom nañ bàyyi di jël wax di ko seeral